mbokki jullit yi ñoo ngi di nuyu bu baax leen ziar di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yal yàlla boole jéggal di ndokkeel mbooleem ci liggéey bu am am solo bi ñu dundalee ko di leen ñaanal suñu borom yal na yokk télé bi ba fépp foo xamante si rek ci àdduna liggéeyub DBT yàlla na fa àgg ndax lii lu am am solo la kon ñoo ngi ziyaare mbooleem ñi nga xamante ne si téléspectateurs yi ànd ak ñun ci spécial ndéwénal ci xalaat bu rafet bi nga xamante ne si DBT ñoo ko defal ñu barkeelu su ko defee rek comme kenn ku ne war na cee barkeelu ku ne man cee feeñal yéenem barke borom Tuubaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات سيئاتي وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي مات لنا الاسلام والكفر ما وبالنسيئة لكل زمان يقول بالزائر والباطن أتاه لله في كل زمن خدمة وعن للغيوب الزمن والاستقامة الوزافا والوباء لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فد روسا قل خدما فوق كل رقبة من ثار الخر كل من خبا محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وبدا الليات ثبت ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراء يوم لنس ولدى سفا هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وسعره الخدوس والخير كمال كن نبي المنتخى محمد خير الورى المختار عند سمدي سان إلهي بالمناجات وأبدا أغنى يدي دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وأولياء خسيدتي فاقد قصائد الكلام واللي تخود وقبل الخير مرام خزنتي باغت قصائد الكرام واللي تخود وقبل الخير مرام خزنتي باغت قصائد الكرام واللي تخود ليلة كل الملين كان منازيا وأوزاه الملين ما توجه النصارى له لي بلا إله إلا الله ساخ مكاري لما قبلنا مدرتي من ليخوض البناء ملكني الملك والملك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا والجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي ومن تراه نفدوا خدمة خير العالمين أحمدا هلي تسليما كريم مدا فرات القلب ونفسي تيبت وبمكاري الخير ذابت يسر خير العالمين خلمي عليك تسليما مثيل النبي للمصطفى وجهت لي خادا نفعا بلا مدرة فانخادا هو سفيه وهو سجاه بهما ظلمي ولو جاو محمد صلى الله عليه في الآل والسلام ومن والاه مع بلائي ومع أمرادي وبردات خادني أخرادي نبينا المختار خير الأنبياء هل لي تسليما حبيب ربيا قلت له كليتي في الأرض وسر وولي قاد ولدي رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليهم من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى المعيسنة ولي سوانا ساق كل من فنى هو نبي ورسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال الصمد على النبي ورسول أحمد أبلغ سلامي الكريم صمد هل النبي وسيلتي محمد هل النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم سمري يا الله يا يا مقتدر يا من إليه جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم واللي جعلت في فوق سومي يعت بذا الخزين ساكنا لك به وقبل ليخوض من لك زنت قصيدتي في سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما سافل فكل ما أردت منك الفال آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا كيما فرديت والقى باركت لي يا ربي في هروفي وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خادني تفسير وتكريما أعطيتني ما الخلق أنسى كلما مدى من الدريم أو سلما كافأني من ماله كفلا بما لخير ساق كل من جان أكرمني بخلق والله الآن ربي ولم يكن له كفلا ناجاني الله مكرم السماء تناجيا به كفاني الكمال وجال الأكرم أنفى الكرم والدرري بخير نال سنما أسأله كونتي القصيدة عريقه لعادة مفيدة يا حي يا حي مصلي بسلام هل الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وصل والتقابل ذا الكلام من على خاريز الحروف بما يفوق ظن بالمعروف لناسب الحروف خلد الربا يا من كفاه ذا الخلول والنباء ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا ساسلا مسلما على مزاز الخلا يا دي مالك دي سافي هنبل وبلي خوص يا دي سين سلطاني دون ngay بوتي غاي باخي بنكون يا دوني nekkoon احمد التيجاني donnu ngay mbooti kunti yoo xalifa yaay donay Abdul Xaadir al Jilaani donnu ngay mbooti xutlu Abdul Yadaani donnu ngay mbooti naari waa daymaani donnu ngay mbooti Mbàkke ki mbusoobe yaa ak suudaani yaa di waame ngëneel yàlla yu dul fer bu la taataan fa duy ca kaw saranaani yaa di sun ngir ma jëm ci yàlla siraatal mustaqiman ku soobu téere jinaani damba yaa di suukar ku mas ne aajar na dolli naa koo masal dootu musul fay nuraani yaa dundal ruuy yaa nu suuxa ndoxu ngëm bu dul kon yow kuy dee dem niiraani yaa raga ragu xol yi bewu bu dul kon noo ngi yam nasraani yaa fi seexal kàngami ñëpp a ngi lay roy yow mi tuubloo Abdul Xafoor Mbaaxaani yaa nu wammat wammat murid yi nu àndal Bamba yaa di mbër yaa nu tàggaleeg seytaane yaa nu tallal sa tex sotti nu say yaa digee ju ngëneel gi nun yaa duyal cerno ibra faati ci say may yaa ko jiital muy xutbu fii yaa defal seex ibra lamp bu dul yaa ko wan yoon ca dex mu naani yaa defal seexi anta barke bu dul deñ jox ko salaami ak gaawaani kile daaru salaam ak kile tuuba ku fa faatooti daldi tàbbi jinaani yaa ma seexal ta may ma fatu ba yaa ma tee dox di mbal di bamba yow yaa di ceebu waaju la bayran la góobee këram ga seexi bamba yaa ma ta àndal kullaam dootu ñàkk bay ñeetaani bamba yaa jar di di gontu ba farde yaa defal yàlla lépp lum santaane yaa defal Mustafa la xaw su yaa di xayrul xadiimi fi diiwaani yow gërëm loo nga yàlla teg ca gërëm loo gën gi yonen faj aajo moo a gaaw lu mu wax boroomam mu ne waaw fal di folli ci man naa ragal ci xarnu bi sëriñ baara faj a gaaw lu mu wax boroomam mu ne day fan di folli ci lu gaaw mën naa ragal ci xarnu bi sëriñ baara fadat wa yaayino wadat fa yaayino wasat fa yaayino xam nan sëriñ baara wakam ka yaayino wasam ka yaayino wasas ma yaayino xam nan sëriñ baara yile malaayika seeni tur juróom ñetti lan ñoo bokk taaw aras wóor na sëriñ baara lamp fal borom gaawaan borom daaru ak manaan Cheikh Ahmadou Ndoumbé xabaan yi rijaal moo seexal ana soppe yi Cheikh Ibra Fall ana soppe yi Cheikh Ibra Fall ma soppal biige kumba faal sunu waaji abu rijaal yibbi faal ak njara njaay sergaleen calan la lamp maam Seynabu Njaay Seex Ibrahima boori jaal lamp faal borom gaawaan borom daaru ak manaan si Ahmadu Ndumbe xabaan yiiri jaal moo leen seexan man bëgg naa Bamba bëgg le ko lampam ba yow bëgg le ko soppi ba Mustafa ma buur baaxal na ana soppey sëñ Mahmadal ku ma soppal sëñ Mahmadal def leen nii ñu màggal ko borom jàmburu lay sargal sunu waaji Abu Rijaal Sëriñ Mahmadal sigil nga borom jàmburu lay tiitaroo sunu waaji Abu Rijaal Sëriñ Mahmadal yow la nu billaahi Mbàkke yow am borom jàmbur moo mat a xam sunu waa ji abu rijaal man de bëgg naa si maamadan man de gëm naa si maamadan man de bëgg naa si maamadan man de gëm naa si maamadan waltuf bina wa xawina wa kun lana wa hab lana